asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi nuyu naa leen ziar naa leen bu baax a baax a baax Habiba na ba ak beneen plat macha allah tey moom dañuy togg suñu añ suñu cuukari bu neex macha allah bu tubaabi waaw kay bu ginaar nag lañuy def dañuy def bu ginaar daal am suñu añ bu neex añ bu tubaabi am añ bu présentable macha allah bu mucc ayib muy noonu léegi nag dañuy ànd daal dem toggu suñu añ bi waaw kay ñu toggandoo ko ñun ñëpp ànd ñu ànd ci waañ bi daal di ko toog mais avant tout maa ngi maa ngi leen di dalal yéen yëpp ci seen bi sama abonné yëpp nuyu naa leen ziar naa leen yéen yëpp maa leen di gërëm bu baax a baax a baax naa ci yéen waaw di ñaan ñi gan yi tamit nañu abonné macha allah ndax ñu bokk ci famille bi léegi suñu ingrédients euh, suñu légumes yaa ngi ni suñu carotte navet supame pomme salad pomme de terre ñu am ñambi ñu am laaj am kaani sofia kaani feeñ soble lépp daal masha allah lépp waaw suñu épices yaa ngi noonu herbe de Provence ñu am paprika daal di am ginger léegi ñu am suñu poobar ñu am suñu kima masha allah léegi sase bi sase curry bi la mais curry bi dafa ànd ak lu bëre bëre bëre bëri macha allah gis ngeen ingrédients yi ñu ngi noonu ingrédients yaa ngi noonu onze <clears throat> épices lañ jël daal di ko boole moo curry bi moo tax mu am couleur bu neex boobu bu rafet boobu te am couleur eh, kii bu bu neex boobu macha allah bi kese kese boo ko amoon nga koy toggee am nga lu bëri moom am na piment am na curcuma am na coriandre am na sesame am na lépp macha allah. Lip amna poobar black pepper lëpp la am am na paprika am na lëpp macha allah onze épices jël daal di ko boole léegi teg neen suñu ñàngata dagg neen noonu suñu kii boobu macha allah dañ ko ciy def bu ko defee mu rafet lool mooy suñu ñàngatam benn taar bu rafet ceeb bi kenn du ko tey ndax ceeb bu dijji la moo tax waaw léegi ma sànni sama ñaari kii yooyu incha allah tamit dafa ci may gu noonu macha allah def ci kaane kaane bu xeeñ bi tamit moom tamit day may ñànkataangu léegi antendre ñànkataan bi ñor ñu daal di piqué suñu ginaar raxas nañ ko ba mu set tracé nañ ko piqué ginaar gi ba mu baax léegi nag dañuy ñëw saaf suñu ginaar def suñu diwlinu jaara léegi yem suñu cin macha allah bismillah léegi moom lañ ciy def noonu ba defee liggéey bi gaaw lool waaw ñu togg suñu añ gaaw añ bu neex Waale ginaar gaa ngi noonu pikkee neen ko léegi dañ koy ñoo saaf waaw dañ koy ñoo saaf gis nga suñu ñàngaram bi pare na allah waaw pare na léegi sa marché bu la neexee dañ koy tey mais lii comme ñànkataan bi duñ ko tey dangay xaar ba nga xam ne ñànkataan bi ñëw na ñor na ñoragul nga daal di sóor sa marché duwaañ am lu baax bismillah léegi dañ saaf suñu ginaar ginaar gaa ngi noonu léegi dañ koy saaf noon ko defee ñu jublu ci leneen léegi entendre gis nga ginaar gi saaf nañ ko seppi nañ ko doore na rafet na lool léegi dañuy dagg nañ suñu légume yëpp raxas nañ ko yëpp bam set léegi nañ sotte suñu uh, soble ak tuuti tuuti kii waaw uh, ci diwlin bi diwlin bi noonu diwlin bi seppee ginaar gi foofu la sotte soble bi waaw ñu def suñu nokkos tuuti léegi suñu herbe yaa ngi nii dañuy jël herbe daal di ko ci def daal di def dañuy def euh, ñu desal ñu desal kii bi kari bi desal tuuti kari ba ci fin bi léegi suñu air bi yaa ngi nii sote ci léegi nañ yëngal suñu soble daal di bàyyi mu kii tuuti def ay affaire tuuti après ñu ñulux ko incha allah léegi bu ñuluxee ñu daal di def suñu mu ngi noon ñu ko bàyyi gis nga couleur yaa ngi noonu commencé génn légi na ñulux nañ ko ñulu bo ndax du nekk soos bu bëri soos bu yem lay nekk dangay def ñaar benn pot rek ak tuuti waaw bu la neex léegi suñu suñu kii yaa ngi légume yaa ngi ni ñu ngi koy décorer pombiteer bi gis nga dañ koy dagg mais du yegg ci suuf nga jël carotte yi daal di ko def ci diggante bi da koy jox benn taar bu rafet macha allah léegi nañ def suñu légume yi daal xam nga ginaar gi moom ñoral ko yomb na ba après nga xam ne suñu légume yaa ngi ñëw ñor daal comme eh, daal di def suñu ginaar bàyyi ko tuuti rek ñu daal di mu daal di ñor gis nga suñu soos bi bëriwul noonu taxu koo bëri waaw léegi dañuy def suñuy léegi waaw def neen suppome def neen pata pataas bi def neen eh, ñambi bi nave léegi kaani salade def neen kaani xeeñ léegi suñu pombiteer baa ngi noonu moom dañ ko décorer ak carotte bi waa gis nga num rafete macha allah dangay dagg pompiteer bi rek mu bañ a yegg ci suuf nga xam ne nga dagg lelli kii carotte bi daal di ko def ci diggante yi day rafet léegi suñ soos baa ngi noonu muy def ay affaire am gis nga noonu tàng nag dafa tàng waay togg dafa tàng mais mu ngi noonu gis nga couleur baa ngi génn ci ndànk ndànk day rafet ba léegi ñu ngi deseloon suñu nokos ak tamaate bi moom la ñuy def noonu incha allah daal di yokk tuuti këri rek muñu buñu mujjee buñu denc buñu dencoon ci njëlbeen bi ñu daal di ko ci yokk tuuti rek waaw benn kuddu benn kuddu bu ndaw lu tollook benn kuddu bu ndaw rek lañuy lañuy yokk suñu soos incha allah daal di dem gis nga couleur bi mu ngi rafet bay bëgga dee te noonu la neexee fi ne nii ah ku fi nekkoon daal xam naa di nga ne waaw ki moom lan lay togg nii <laughs> bi neex na gis nga kër bi tuuti rek la la nii dañuy def lu tolloo kuddu bu ndaw tuuti rek waaw pour ñu yokk couleur bi yokk tamit goût bi waaw comme sauce curry lañu wax waaw kay mu ngi noonu léegi nañ ko tëj ñu bàyyi ko kanam après nañ ko yëngal ndànk nga yëngal rek bañ a tas légumes yi commencé ñu wax légui dañ koy baye ba ci kanam ñu dal di def suñu ginaar ok légui nak dañ koy tej baye ko ci kanam ñu dal def suñu ginaar defé ginaar yi nga xamné du yagati après dañ ñu seppi dal di ñu dal di seppi dal di yak suñu añ dal dal di yak suñu añ macha allah en attendant ñu defar suñu nen léegi dañuy jël ñetti nen yooyu ma leen wonoon léegi dañ koy dañ koy def suñu dañ koy def ci tuuti diwlin rek waaw omelette genre omelette lay nekk tuuti diwlin ngay def bu diwlin bi saa si tuuti rek nga daal di eh, sotti sa eh, nen nga so sotti nen yi en attendant diwlin bi saas ñu daal di def suñu ginaar. daal def suñuy ginaar buñ defee ginaar bi ba pare ñu noonu def nañ suñu ginaar macha allah gis ngeen loolu ah gis ngeen lii <laughs> lii dara fayu ko allah léegi nag ginaar gi mu ngi noonu dañ ko tëj ñu bàyyi ko mu baaral ñu wàññi bu baax suñu gaz petit feu ñu defar omelette bi léegi buñ defaree omelette bi ñu daal mélanger moom tamit ci ceeb bi moom tamit day day rafetal ceeb bi bu baax a baax a Légi nañu saaf suñu omlet bismila saaf suñu omlet bi waaw dangay jël kuddu rek daal di ko tojate doo ko bàyyi mu pat noonu dangay tojate mu nekk ay tojat yu sew sew sew sew te jox deux couleur bu bu zone bi ak blanc bi la lay jox ñaari yëpp la lay jox léegi boo paree loolu nga jël ko daal di ko mélange dangay kii ba mu wow ko dangay saaf ba mu xaw a wow du toy non, bala muy toyal sa jeb bi bala muy toyal sa ñànktaan bi mom ci ñànktaan bi nga koy def rek donc masa duwaañ bi ngay mélanger dal diko def sa bah, nga am lu bax couleur yi rafet yu neex tamit waaw yu neex a neex a neex neex léegi nañ nañ ko batti non dañ koy toj tojate tojate en attendant suñ bi di bar non xamne ne na baar na léegi daal mu ngi ni pare neen suñ ñankatan yoon na defar neen suñu omlet léegi dañu ñëw daal di jël omlet bi rek dindi diw bi segg diw ba mu wow ko dese omlet bi kese daal di ko mélanger ak ñankatan bi ñu ñëw nag daal di yàq suñu añ allah waaw daal di yàq suñu añ bi nag maa koy may sama mbokk jëkkër yëpp waaw sama mbokk jëkkër yëpp may naa leen ko yakal na len ko ñom ñep sama xarit umu hawa ba ca ngeho man la koy may di la ko yakal hasatu jallo waaw man la koy yakal sama bàjjenu joj ma sha allah waaw ko tamit yakal na ko sama ñaari chéri fatima Jaloh madame ba khadija Madamba madame ba ci espagne may na len ko yakal na len ko sama chéri yu rafet yooy macha allah waaw yàkkal naa leen ko ñoom tamit ci lañ bokk ñoo seen famille yëpp macha allah gis ngeen suñu cuubi ñor na waaw suñu ñànkatan baa ngi noonu waaye lii koy fay xoolal ma lii ñànkatan di def nañ ci omelette bi que sama macédoine bi moom jaaroon fa bu yàgg te moom macha allah gi farafet muy ni legi ñu ngi ñoo yak nak suñu añ bi ñànk tam baa ngi noonu koy jëlal benn forme rek dañ koy defal benn forme léegi boobu def suñu ginaar ak côté def suñu pomme de terre li nga pomme de terre bi après ni muy mujjee day rafet day rafet ba day <laughs> rafet ba macha allah moom itamit da ngay jox benn taar bu rafet waa ah, léegi gis na ñu ci yàq bi de waa ah, ñu ngi xool daal na ñuy def ba mu rafet lool nga xam ne dinañ ko mën a présenté waa ah, suñu àllaaji te dëgg mu ngi noonu léegi ñu ci kawam de ñu ci kawam ba léegi ci yàq bi macha allah ñu ci yàq bi de waa loo leen wax lii xoolal lii xoolal yi ci couleur man maa bëgg ñànkataan bu rafet maa ñànkataan day rafet neex am guu waaw am solo ci togg am na solo lol ci togg machallah allah ni ne nii na bëgg na añ dama ka bañ ba ndekkiwuma ah bëgg toog rek jàkkaarloo sama cukkër bi waaw maa ko yàkkal tamit sama magu bopp soxna Ndeye Ndiaye Diagne ma sama manager <laughs> maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax baax yàkkal naa ko waa groupe 16 yëpp ah macha allah yàkkal naa ko sama mama ak bëtu mama faama géey